asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Nafi Fall doomu man maa yaay Mouhamed Moustapha Diagne <laughs> ma ko yëgee dafa metti day waar man maa daan ànd moom sama doom la maa daan ànd ak moom chaque jour di ko faji chaque jour ko jëfee dañ fay yendu ba dix ñu ñibbi bis boobu nag ba mu amee julli ñu toog bu ñu xëyee toog nañu ndekki na ba pare mu ndekkee ba pare ñu toog noonu ci baam bi toog ay côté de deux heures deux heures trois heures waaw ñu julli deux ba pare mu julli moom julli na sax deux heures mu jullee deux heures ba pare ñu toog toog toog toog di xaar toog ba si yàgg ma gis ko muy dem ak ñëw ma ne ko waaw Ameth bàyyil naaj bi tax wàllu bi yaa ngi naaj bi dafa tàng kaay toog moo toog nii bu tàngee sax nga dem toog nee si mbaar bi waaw ma tëdd noonu foofu duñ féexlu parce que ñoom ci biir lañ leen di fajee man ci biti laay toog moom du mën a toog foofu lu bëri day jéeg saa ñëw ci man toogaat ñëw di jaabante jaabante yow si kanam am benn xale bu góor bu mu ko jotuloon rek après boo jotul moom ba pare ñu def foofu benn histoire bu ndaw rek ba pare ma ñëw mu toog ma toog moom mu ñëw toog si man ba mu toogee ci man ba pare si la benn xale bu góor bu ñuy wax Michel mu ñëw yëkkati ko si man na ko ñëw dugal ko ci biir na ko demal dem toog diire bi yàgg maa ngi toog foofu ma toog moom mu ngi ci biir mu nekkee ci biir man maa ngi toog ci biti ak samay ñeneen ñuy faju ci foofu toog foofu ñuy toog di waxtaan ñu toog di waxtaan si yàgg rek ma dégg ay tër tër ma ne waaw yooyu de ay dóor la yooyu ay dóor la de xaw ma doom la sax de ma yooyu de ay dóor la may dégg tër tër tër tër yu metti ma ne mu yéen kii de moom dóori mi metti na rek ma dugg ma ma jug dem xool ma duggee rek amee anamet ñu ne dama taxaw fee amee ministre dafa am lu ñuy def ma ñëw toogaat di dóor di dóor yàgg na yàgg sax tamit ma demee dugg rek mu ne ma waaw ma ne kon dama toog nee xaar rek bu paree nañ la wax ma ñëw toogaat si yàgg rek ma gis leen kii ma jël sama téléphone rek woo sama doom bu jigéen woo ko ne ko Ndeye Marie Ahmed daal du ñàkk am na lu mu def fii ci biir ba ñu koy ngi koy dóor dóori metti daal ñëwal woolu papaam nga ñëwaat après ñoom ñu ñëw ñu dem tas taf taf rek ma gis leen ñëw man leen yeen tëngeej ngeen man xanaa yeen passage bi ngeen jaar ñu waaw ñëw toog toog mu toog ma ne leen ministre après ñu ne ma am benn xale boobu mu ne amee dafa am ku gaañ fi ma ne ko lu gaañ fi lan kooku ne ma mère gaañ bi sax amul solo garaawul amet xam nga man maa koy ñëw di ko sonal noonu rek chaque jour da koy sonal di ko wax yooyu man ko samay rawaan ak samay rawaan ak moom ay samay rawaan àndul amet bugg koo digérer daal mënu koo xool mu ne man samay rawaan moo diis loolu moo tax xam naa amet mënuñoo def ma ne ah. ma ne ko après papa amet Moustapha amet Moustapha Diagne mooy sama doom ku ñu gaañ moom moo wax ma loolu ñu koy mu lii du dara xamoo lu ko defloo sax li ko def loo xamoo ko sax ma ne ko waaw man sa am naa si kersa ruus yow nga xam ne chaque deux jours su may ñëw nga jox ma 1000 francs na jëlal amet mu mu ne amet rawaan moom samay rawaan moo àndul ay rawaanam loolu moo tax ma ne ko ah waaw waaye lii amul dafa metti ba pare ma ne ko waaw man mu ne ma man maa dem dispensaire sax bu mu ñëwee mais ba mu demee dispensaire sax dafa ne dafa daanu si kii xotti biteel rek mu faj ko waxul dara amet mère lii du dara yow sama yaay nga lii amul benn problème ma ne ko non xaaral papa mu ngi nii sii sax aar mu wax ñu woo papa mu ñëw massa jéggalu ko mu ñëw foofu après ñu wax ma ne ko lépp lu ci war rek nañ ci def sooba yàlla après papaam ñëw jënd ordonnance yi jënd lii yëpp jëm mu ne mère lii jaru ko man indiwu woon xaalis sax mais sama benn xarit moom ma abal ñu ne ko waaw léegi mën ne ko waaw léegi ñu kooku ñu laaj ko run papaam joxe lépp lu war lépp ba mu jeex après ñu dem toobi dem toog léegi mën a leen waaw léegi dafa mën a sangu wala ñu noonoo non taxawal tuuti rek est-ce que ma ne ko ah ñëw après ñii di waaje dem ma ne leen non non ngeen dem li ngeen dem xool Mouhamed ba pare sama doom bu jigéen bi Aminata Diagne dugg ci biir di ko seet rek ñu baare ko ne ko ne ko baare pour lan kii di sama doom kii moom amet ñoo toppante kii moom mag Ahmed Ahmed a topp si moom doo ko bàyyi mu dugg mu xool dañuy ñibbi ñoom ak sama beneen doom bu jigéen bi ñëw dugg rek ma ne après wool papaam papaam ñëw ñu ne noo xaaral après kii forcé rek dugg rek gis dem ci biir fekk ko ñu tëral ko ci ginnaaw ndekete dañ ko dóoru dóoru dóor ba mu laf dara mu ne ma yow kay ndekete yow sa doom dañ ko rey dóor nañ ko ba mu dee mu ngi ne leen rek ma daw fekk si ko ma ñëw laal loxo yi mu wex tal xool tal kii wex na tal ko gis mu ne nga ne mu ne leen yéen rey ngeen sama doom ngeen dóor ko dóor yi métti nii yéen rey ngeen nit yéen yéen yéen a bon nii ngeen def sama doom rey ngeen Mouhamed waaye di ngeen xam ne Mouhamed yonant bi laa ko tuddee salaahu yàlla na ma yàlla na ma sama àq dal ci dara yonent bi waaw après léegi sama doom bi sama doom bi jigéen bi ñu ma delluwaat fi ma toogoon ci biti ñuy nekk def seeni defaat def ba ci yàgg mu ñëw meer kaay ma ko lan la mu ne ma ñëwal amee dafa dañ ko doon sang mu daanu ku daanu fan yéen nit mu sol ndox bu bari ma ne ko sol ndox fan la solee ndox bu bari yéen ngeen dóor ko ba mu dee nga sol ndox kaa yóbbu ko hôpital ko hôpital <laughs> waaw ma wax mu ne nee na papa ma woo ko ma dañ ko doon faj mu daanu dugg si ndox ma ne yóbbu ko hôpital ma ne ñëw ma ma ne toog après ñu gis naa benn xale bu góor mu dugg ci benn néeg ku ñuy wax Ablaye mu yëkkati benn jiin dugg ak moom ci biir ndekete dañ ko doon def dóor ko comme ndeyam nu mu ko juree lañ ko doon dóoree changé yére taf-taf solo ko ma daw ma génne fu ma nekk rek daw moo waxee ndox tiit naa ma defe na sax dafay kii ma dew dafa man oxygène rek ma daw daw naa fii ba ba dem arrêté taxi ñëw indi teg ñoo ñëw taxaw te ñu meeb ko indi ko buñ ko dugalee teg teg ko avant may dem ma ne ko kii dee na nga ma koy tegal man kii mënu ma ko yóbbu kii dee na ba pare du ma dem ma wàcc taxi bi jël fekk dëkk naa sama saag ak samay daal noonu laa fa bàyyi sama saag ak samay daal ma génn dem toog kii sama doom bu jigéen bi ne xatraay kenn du ko yóbbu fii la deewee police laay woo li bari fa ma ne ko man du dem sax hôpital man dama dul dem du ma yóbbu di dee na nekkete dem na ba police wax fa ñu ñëw toog le temps que ñoom papaam tiit na defe na bëgg na ko sauver mu ne ko léegi papaam ne taara oto bi rek mu yóbbu ko Dominique bu mu demee Dominique sax dugg lañ ne ko kii dee bu yàgg loolu laa si am. yuuxu na xam naa ba dee ndax distance bi dafa sori ku ñuy dóor nga dul yuux amul xam naa jooy na yuuxu na bal leen ma ba sonn ñoom ñu continuer rek ak a ñëw sox nit di ko dóor te doo bàyyi benn yoon dafa jooy ba mënatul. ki ko doon sang moo commencé moo ko ñëw fekk ma toog mun ne ko ñëwal dugg ñu koy wax Michel moom la après yeneen compagnon yoo xamante ne am na ñoo xam ne sax dañuy sangu si foofu mais dañuy dem di bokk bokkulu foofu dóor nañ ci dóor à peu près six personnes yi ma gis man damay toog foofu ndax sama doom bu duggee damay toog ci bunt bi di xool laa gis ñoom ñoo ko dund dóor dóor rek la dëkkee dóoroon na sama benn cousin boo xam ne ko dóor na soo xam ne sama sama malaat la sama mbokk la ñëw di faju foofu yaayam ku jur yaayam ak ku sama yaay ñoo bokk ndey ak baay mu feebar mën na leen indi leen ko fii ñuy indi ko mais benn jour laa ñëw rek suba teel ñu ne daf ko da doon xeex ak ñoom ci biir ñu koy sot fii ci biir non man dama defanoon seen rab bi sax rab bi moo koy moo koy bañ loo muy bañ a sangu moo tax ñu ko doon forcé après moom ba mu génnee nettali dafa ne dañ ko doon sot gu foofu doo fu mën a dugg doo dugg ñu lay baare da ngay wax da ngay bëgg sax faraanoo sa malaat boo xëyee wax sëriñ bi sax ñu ne la noonu di la bistule ah mais du wax du wax nitul kooku du wax boo ko doon rey sax du wax boo ko doon rey sax du wax dara du ko jotee sax yaa koy gis si moom rek xool ko rek ne yow kii dara mais du wax mukk waaw te xam naa xam naa yàgg naa si biir conséquence am na benn bis dama ko doon sang rek gis benn trait ci ginnaaw bi mën na ko nga ne mën na ko yow lii la def nii mun a amet amet mun ne Michel Michel Michel ah mën na ko waaw ah, ma xëyi suba dama dem mën na ko yow amet dama ko sang si suba de gis naa benn trace yaram de xanaa daf fi woon doon de ko ne mu ne Michel na ma déedéet ma ne ko lii de dóor na en tout cas na de dóor la de mu weddi musuma wax jógal foofu amet day repiste day repiste ma defa ne rab bi rek la ma forcé na ko demal bëgg bëgg rek mu wér moo tax ma doon def loolu bëgg ma wér rek ba damay bañ mu bañ rek man naa dem ñuy dóor sama doom di ko torturer ma taxaw di kii di xëy 6 di ma matin di toppatoo sama doom di ko def di ànd ak moom dem ba foofu yoon yendu ba ngoon di indi may xool ñuy rey sama doom kon man dañ ma reyale su ma xamoon noonu loolu lañ koy def ci biir damay balaa ñu koy rey man la ñuy njëkk rey barke si yonent bi noonu la dafa na ma mère kii dafa doon sang mu daanu daf dugg ci ndox ma ne ko ndox yow kay yaa ko rey kii kay loolu amul lii dóor yii ma fekk yaram bi dagg bopp bi dagg yépp di nàcc ma ne ko yow kii nga dóor ko ba mu dee ngay wax neen affaire kii mukk kii kay duggul ci ndox yaa ko rey Michel ñëpp ko dóor ba yéen ko doon sot sotoo yéen a ko dafa dugg hôpital man dugg ma damaa dem sama jëkkër ñu ne xool nañ dañ ko ñëw médecin bi dafa ñëw wàccew ñu ko sax dee bu yàgg lañ ko noonu laa si am wallaahi noonu laa si yam wallaahi loolu ñu ko mën a dëgg waaye dee man ma gis kanam gi deforme xam naa dañ ko doon coup de di ko dóor di gaañ ci parce que ki mu gaañ am na intérêt ñoom dañoo gis intérêt moom parce que daf xam naa man da daan toog di waxtaan a man waa ji xam naa Europe la jee feebu la feebaroon xam naa du ñàkk da leen di pomp ay xaalis di leen may xam naa ba mu jotee ak aada am amet ba amet def ko gaañ ko tuuti xam naa dañ naan dafa ñu bëgg yàqal ci waa ji dëkk ñu ngi nekk tig bi marché technopole ci rond point technopole ci biir ci ci biir ci biir ci tool yi ci biir tool yi la koo wax maadi rek xam nañ ko ci watu kii douche yi manqi douche yi foofu la boo jàddee dugg si biir la ci biir tool yi la foofu la ñuy toog non oh non Michel sangkat rek la Michel day dara sëriñ bi moom bu fa nekkee benn bugaa am mais instant boobu damay wax te yàlla tax sëriñ ba neew fa woon dafa demoon tabaski ji ba mu tabaski jee jox nañu sax ay garab pour ñu dem pour bu ñu avant muy ñëw ñu mën ko utiliser suñu kër jox nañu garab mais ñu mu après ñu ne ñu jeudi ngeen la ñuy recommencer dimanche xam nga ñu noppalu jeudi vendredi ñu dimanche leen dimanche la ñuy tabaski lundi mardi mercredi ñu ne jeudi ngeen ñëwaat man sax demuma jeudi ndax dama sonn ma ne li ñuy maye dafa ba dama du bàyyi ba lundi ci laa commencé waat ñëw di sax mais ba mu ko reyee dama woo seriñ bi woo naa sëriñ bi de sëriñ bi na ma di jooy di jooy jooy yu metti ñu santuma leen lii ma ne ko xanaa dangaa feebar mu ne ma affaire bi moom ma def choc ray bi nga wax ne rey nañ amet moo ma def choc mu na ko rey na ko de dañ koo dóor a dóor a dóor Michel ak compagnon dañ ko dóor ba mu dee foofu la deewee déggoo li ma la wax six personnes ak jigéen ñi doon togg foofu jigéen ñi sax dañoo baaxul ndax jigéen ñi bu ñoon amoon du ñu juróon bañ koy dóor sax mënoon nañu daw sax ñu wax ma ne amet ñu ngi koy dóor bi mais waxuñu dara mais en tant que jigéen di yaay man da bu doon man su ma ko gisoon kenn du demee noonu waaye dañ maa làq may ñëw ñu may daw man dinaa gis ñuy dóor sama doom kon nañ may reyaale ah, man de man jël naa matuwaay sama bopp xam naa ne dama doon maslaa rek di sama doom bi ndax dafa feebaroo moo mënu ma woon bisculer de ñooñu gënuñu maa dof gënuñu maa rakkaaju barki yonent bi man sax mën naa koo fajal sama bopp dama leen di jaay sama bakken mais dama doon xam nga mënu woon wax ndax dafa sama doom feebar na te am na histoire ma bañ ma samay doom ñëw dugg si moo tax ma doon bañ battement mais dama leen bàyyi teg naa nag yëpp ci loxo yoon bu yoon defulee liggéeyam man dinaa def sama bopp de damay révolté wu de bàyyiwu ma de du ma ko bàyyi ba may dugg bàmmeel tànk gisuma lu ma naqar lu ma neex dëj bi laa doon bëgg mu deñ ba jeex bu jeexee man nag ma mari battement police parce que samay doom sama doom bu góor mer na am na benn jour ba ci ëllëg sa di dem na jàpp ñaar ci ñoom ñu nga ci police bi police ñaar ñi bokkoon foofu ñu nga damay bàyyi nag police def liggéeyam police defulee liggéeyam rek ma ñëw man tamit na ma jaral sama bakkan de barki yonent bi ah man de foofu de bu ma saroon kenn du fa dëggatu foofu sëriñ bi baax na mais ña fa nekk ñoo réew bon joxuñu benn cër doomu aadama dañ lay dóor di la pokkatati du ma sañoon foofu nit dootu fa sangooti dañuy rey kuy rey loo fay wutati ñoom kay yàqal nañu sëriñ bi sëriñ bi melu noonu mais ñoom suquyee ñoo mel noonu ñoom Michel Michel ak Ibu ak Ibu ak Michel moo dóor Ibu ak Isaa ak Laay ñëpp laa xam foofu ñépp doon dóor baray sama doom parce yonent bi moom mooy dafa daw waaye du ci de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ma ko niital ci dara yonent bi dina ñëw de kay jërëjëf